Gani jéem leen jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale gaañi jéem leen jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale aduna xëyu rekk jikki di sotti benn benn ñaar ñaar moo lay yóbbu ñett asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ñëwaat ci seen émission jotaay ak borom tawféex comme ni ñu ko defee saasu ne tey ñu ñëw ci beneen feebar bu ñu wax prostate prostate nag baat bi du feebar cër la boo xam ni góor moo koy am mais ni ma koy faral di waxee rek olof mooy def cër ba mu feebarle mu tuddee ko feebar bi mais prostate cër la bu nekk ci góor. méngook lu mel ni testicule ci góor lu mel ni sacrum fu muy sëy ci góor yooyu yëpp dafa bokk ci appareil génital ku góor ki bokk ci wàllu nag am doomam ak yu nu meeg ak problème mànniwu bi mais nit rek mooy def chaque fois li mu feebar la la tuddee feebar bi prostate góor rek ko am jigéen amul prostate ndax benn bis maa ngi dégg ci waxtaan kenn ku naan prostate bu góor ak bu jigéen déedéet jigéen amul prostate góor moo am prostate prostate bi mu ngi nekk ci suufu poftan bi muy vessie bi mooy li yor saw mi prostate moom la olof di wax gànge gànge bokkut ak gàng gàng garab la gànge mooy prostate ci olof maanaam ci misaal prostate boobu li nga xam ni moo ko war mooy gannaaw mu nekk ci suuf fi nga xamante ni mooy fi vessie bi ne maanaam su newoon nii rek exemple ñu jël góor li tàmbalee ci ndiggam rek wàcc pour nit ñi xam prostate bi fu mu nekk rek misaal rek la maanaam lii mooy góor fii mooy testicule yi mooy ñaari donj yi saw mi bu doon day saw fii la saw mi di jaar donc mbuusu paftan bi vessie bi moo nekk nii ñaari donj yi ñoom ñoo yóbbu li nga xam ni mooy wallax njaan yi moo nekk nii fii nag la prostate bi nekk lii mooy prostate porostat bi moo nekk nii moom dafa nekk ci suufu vessi bi di poftan bi mom gangé bi nga xam ne moy fi dom doom yi buñ défaré walax njaani mi spermatozoïde yi dañ koy dañ ci souf fi ñu wax épididyme bi buñ fa nekké dañuy melni ku ku nekk en hibernation manam ko xamni dafa teju dundut deewut na tek rek japp ñambaram melni ku denc bopam mais bu goor gi sëyee ba man yu bi génn bu ñëwé nak ba ci prostate bi prostate bi ndox mom muy défar mom la koy soti muy ndoxu PSA bi mo da nga gis papa ñi am fièvre prostate ñu leen di wax xolal sen ñu leen di xolal sen PSA PSA batu anglais la PSA P bi moy tek prostate S bi moy spécifique A bi moy antigène muy prostate spécifique antigène bu de nga wax France nga ni antigène nga ni antigène spécifique de la prostate manam ndox la bu mu defar bo xam limi muy jëriñ mooy wala ni bu ñëwé ko comme dañoo ku melni kuñ dugon ci frigo congelé leen bu ko soté ndox mi day tax mom mu oyof xorom suñ ko sotoon mu dindiko mu sawar waaye teg tamit mu dundal ko waaye teg tamit mu may ko moom mu mën a barestu ko maanaam day fluidifier yi nga xam ne mooy ndox mi ba mu ratax ba nga xam ne dina mën a daw dem ci nenu ko jigéen ki kon mu nekk kon cër bu am solo ci jëmbi doomu aadama pour lan mu mën a wàllu am doomam mën a normal waaye wàllu yëg-yëgu bànnee xam ci wàllu sëy mën a normal waaye wàllu ndox bi muy génnee it mën a ratax mën a normal kon prostate bi di gànge bi rôle bu am solo lay dox ci wàllu woowule moom nag nit ki bu fekkee ne dafay màgg di dem di jëm mag maanaam bu nekkee xale moom prostatam day màgg waaye bu demee ba am yenn âge ba nekk mag dootul waratul màggati dina toll ci quinze ba vingt gramme lay ko toll boo ko doon peese ci wàllu diisaay mais ni ko bu demee ba am lu am quarante ans jëm kaw prostate bi dafay commencer léegi di màgg màgg màgg boo xamante ni dafay commencer di yokk bu yokkoo nag ku ne xam ne ni fii ngeen gis nii lii mooy tuyau bi nga xam ni fa saw mi di jaar gannaaw bu ko paftan bi soté saw mi nit ki sayuko dafa traversé li nga xamni ni gangé bi di prostate bi prostate bi nag day am yenn moment yo xamni ci nit ki ci dundinam prostate fay mag, yok volume Mo da ngay dégg adénome de la prostate wala nga hypertrophie de la prostate adénome ak hypertrophie même chose la moy lan augmentation de volume de la prostate manam prostate bi yok na volume bu yokkoo volume nag yaatuwaayam ci misaal comme prostate bii bu dee dafa yokk volume am nii bu yokkoo volume nga xam dafa gën a yokk def nii lii nekk prostate bi nga xam da cee yokk màggat mu am bi li muy indi mooy dafay yóbbe li nga xamante ni mooy prostate bi day yóbbu lu mel ni vessie bi nga xam ne moo yoroon mbuusu saw mi poftan bi da koy déformer ndax da koy tóoj bu ko defee prostate bi day yóbbu mbuusu saw mi def nii da ko yóbbi mu def nii bu ko defee nga xam ni lii kon léegi mooy mbuusu saw mi li ma def en mooy mbuusu saw mi léegi boo xoolee mbuusu saw mi ak prostate bi léegi ni ñu mel léegi ci misaal mooy prostate bi ngur fan na nojo na li nga xamni moy vessie bi su ko nojo nak da ngay gis ni li ngeen gis ni li ngeen gis ni ma def ko en vert day nek sawmi mi sawmi nit ki bu sawé saw vessie bi day saw bu sawé mais li ta fi du meuna genn ndax li moko ko sawmi du meun jog dem mo ra ngay gis ko xamni ci walu signe prostate gis na moom daana damay saw mais saw mi damay saw yëg ni des na mais leneen du meuna a mo am ben genre rétention saw mi taaju fi la nga xam moom day am yeg yegu saf saw bi gis nak bi day diis mu diko yeg yëg mel lu coincé parce que ndox mi mo ta fi saw mi parce que mënut a tóoj jàll fii parfois na nga gis tamine mom prostate bi di gangé bi mu naj li nga xamni moy mooy bi moy urètre bi moy tuyau bi nga xamni fa la sawmi mi jaar tuyau mi saw di jaar ni mën na ko naj bu ko najé day wàññi calibre bi comme ni ko tojé ni fi mu wàññi calibre bi fi da fay da fay tout tabla ben ndaw mais kon nañ koy gëna yaatal urètre bi bu tijoo day mel lu def ni day mel lu def nii doog ubbeekuwaat fi muy tëju ni ci misal xaar pour nit ñi gëna mëna comprendre limay wax bu doon li moy mbusu sawmi ni lay def bu ko defé prostate bi mom nek ni prostate bi nek ni légui mom ni mu fi ki da fay tejj wañi calibre bi nga xam nit ki bu saw dana bëgg saw yegg ni war na saw mais bu démé saw mu day jafé mu génn day def par tok di metti yeen say mu force mu and ak deret hématurie bobu fi nak lim ko toj urètre bi motax saw mi day jafé jall mo tax gis para ko dem ci douche bi di sawi

tóoj vessie bi poftan bi ba nga xam ne saw mi bu ñëwee rek day bare su dem nga xam ne day saf saw fi mu yëgee ni saf na saw ak fu saw mi génnee benn la du ko mën téye nga xam ne foo ko fekk tubayam day tooy ndax saw mi la mëntul téye mu am incontinence urinaire boobu moo gis ni prostate li muy def nit ñi ci bëri mën na la indi incontinence urinaire mën na la indi mën na la tamit lu ñuy wax pollakiurie maanaam ngay jaabante rek di sawi ci douche bu lu bari te saa yoo demee tuuti mooy génn bu yàggee rek mu ne la ay infection yeneen complication kon mom prostate bi adénome boobu nga ci deg nak nek na lo xamni bu fekke ni nit ki telu su jog nak meun nako indil yenen complication meuna na dem sax bu yagge donte adénome bi lu bénin la manam lo xamni euh, nekul cancer mais bu yagge nak meun indi yenen perturbation ma nga xamni meuna dem sax ba nit ñi am ay cancer de la prostate xamna naa bis dinañu spécialement ci cancer de la prostate mais tay dañuy wax rek ci hypertrophie bi wala euh, wala euh, adénome bi muy augmentation volume prostate bi ci la ñuy wax mais daal nit ki nga xam dafa am prostate li muy nemmee ko rek mooy saw mu bari mi te tegloo am jafe-jafe téye ko ci ñenn ñi dem di saw muy toq pa tuuti mu jafee génn ñenn di saw mi ànd ak deret ñenn si lañ bu mujj duñ sax saw dañuy defar sond ñooñu ñëpp li leen ko waral rek mooy rek prostate bi ni mu màggee ak ni nga xamni non lay nalo ci li nga xamni moy mooy poftan bi di vessie bi wala mom gangé bi ni muy ngar li nga xamni moy mooy poftan bi wala ni koy wéro wala ni nga xamni non lay lay so ci wétam moy indi différence en fonction fi mu féetee ak ni nga xamni mom la def li di vessie bi di poftan bi moy indi différence nit ni muy yégué sawam ak ni mu koy sawé kon mom prostate nek na faire bo xam nak mi ngi dal lu ciop ci mag ñi à part de 40 ans jëm kaw dina am xale yo xamna dina am parfois adénome de la prostate dinay faral di am mais ñoo ñu ci bëri leen ko jox ay infection mo leen ko indil infection yàgg mën dem ba indi prostate bi problème mais adénome de la prostate mu hypertrophie moom ñi ngi koy gën a séentoo ci li nga xamni moy ko xam dem na ba tollu mag 40 ans jëm 50 60 70 80 ans manam nit ki lu mu gën di mag di dem rek nga gis ni wàllu prostate bi di gën di développer di gën di yaatu mu koy gën di mën di indil ay li nga xamni mom moy mooy moom mooy jafe kon ci teunk prostate bi nga xamni ni lu am solo lay dox ci walu nit ki ci walu sëyam ci walu am domam bu fekke dafa am jafé jafé ba tëj urètre bi am na ñoo xam sax dañ ci am am cancer bu waxtan ci cancer dañ ci ko mëna a bañ jënd leen sen sen prostate bi mais ñoo dañuy gis sax ñoom bu ñuy sey mën nañ sey mais sen ndox duñ gis mu génn wala bok sax mën nañ sey ba japp ni ñoom sen ndox warna génn Nous toog le yàgg de gis ndox mi se ko roglat sen wax éjaculation rétrograde yoy mom bis ñu ci cancer de la prostate ak yimi ak boku ko yami def ak yoy dinañ ci mais dal lu am solo fait moy fexé ba nit ki ci PSA bi ñu fexé normal bañ ji yéeg rek nga volume prostatique bi mo meuna mo meuna dal ay nit ki na ba nay dem di saw yi maanaam di téye saw mi lu bari yooyu baaxul nit ki bu safee saw rek nga xam ne yëg nga ni yëg nga ni war ngaa saf saw rek demal nga demal nga saw yi léegi nag am na ci nag loo xam ni ki da koy prévenir boppam maanaam am nga prostate bi wala amagoo ko nga bañ mu dal la wala am nga ko la tàngoor ku la ko faj nga bëgg prostate bi wàññeeku muy adenam bi muy augmentation bi mu def li ñu lay conseillé d'abord mooy fexeel ba nga ut li nga xam ni mooy lu mel ni yoxos bi huître bi yoxos baax na dafa bëri zinc dina dimbali nit ki ci prostate bi mu wàññeeku mais nak amna lu ko am solo lo xam tam mi naajo bi naajo bo gisee mom lañ wax cucurbita maxima mom yi ci nek ci fañeen dafa bari cucurbita maxima bob amna ay minéral yu bari lu melni ni magnésium mi ngi ci lu melni phosphore mi ngi ci B1 mi ngi ci B6 mi ngi ci amna ay protéines acides aminés yooyu amna ci mais li ëpp solo ci mom da nga xamni moy mooy dimbali nga xam moy prostate bi mooy zinc bi ci nek motax xoxu xooxu naajo bu ko nit ki mën am bu ko neexee mu yëy ko noonu jël lu chaque jour rek lu mat ñëpp ci loxoom seex yëy ko comme ni ñu yëyee gerte su ko neexee tamit mu jël ko weer ko ba mu waw wal ko sunguf di ko togg laax. su ko neexee tamit mu jël ko teg ko ci lu mel ni pool yi ñuy saafee mu mel lu ko xaw a saaf bu ko fee day mel ni gerte mu di ci dëpp ñëpp ba loxoom fees mu di ko yëy chaque jour kooku dina ko dimbali ci koo xam ni amagul jafe-jafe prostate maanaam prévention. pour borom prostate la waaye ku am tam ba nga xam ni euh, prostate mi ko bëgg a sonal bu ko jël dana ko dimbali ba nga xam ne hypertrophie bi dana ko dina nga xam ne dina am hypertrophie dina ko hypertrophie dina ko wàññiwaat kon loolu am solo la comme que nag euh, temps bi chaque fois daf ñuy xoj rek ñu tënkee foofu ci li nga wax tey ci prostate beneen yoon dinañ dugaat ci prostate ci yeneen am ci yeneen fànn ci cancer yi ñu demee. bu jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale. yóbbal bi ñu defal saa su ne nga xam nit ki dama koy waxee dafa am soxla baatin am soxlay bëti neen kon ci soxlay baatin tey li ngeen jox mooy comme que temps dafa xat nit ki bu fekkee ni dafa bëgg ay mbiram du ubbeeku mu bëgg di am ay xéwal di bëgg di yokku kooku day fexe rek mu bind nit mën na ko bindal boppam sax xayu xayuum fii jiidihaa xayu xayuum fii jiidihaa lay bind 1111 fois junni ak ñaar téeméer ak fukk ak benn 1111 boobu moom lu am solo sax lay tekki ci wàllu poids musique dañ ci mos waxtaan bu bindé mu jàmb ko saafara sangoo ko waaye mu togat 40 jours yo xamne ne bis bu nekk day wérdu li nga xamne ne moom la bindoon hayu xayoom fii jiijia mu wérdu ko 1111 bis bu nekk mu def ñen ci fan 40 jours loolu lu graw la ci walu poids mystique bi dinañ ci indi ay leeral pour wax leen nit ñi chiffre yi ak li nga xamne ne nga ko wara a wérdee lim bi solo bi mu ci am ndax aduna boy seet lépp chiffre la kon nit ki bu ko defee nag ci 40 jours inshallah ci kàttu ñaala ay mbiram dana xéwale maanaam 1111 xayu xayum fii jii jiijihaa mu bind ko jàmb ko saafara sangoo ko ñeent fukki fan yi si topp yëpp muy 40 jours yi si bis bu ne mu wér di xayu xayum fii cent 1111 fois di ñaan ay soxlaam ci kàttu ñaan suñu borom dina ko yombalal ay mbiram loolu la ñu indiloon seen wàll yóbbal ak tawféex ci seen émission jotaay ak borom tawféex di leen jox daje ci beneen anam ci beneen fànn asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kaa ñi jéem leen jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale jàppale aduna xëyu rekk jikki daa sotti benn benn ñaar ñaar moo lay yóbbu ñett kanyi nangen jem kanyi nangen jem